ñu kaawu euh, suñu naataango fecckat bi suñu doom. Mhm. kooku kenn du wax actualité ba pare te instant bi waxoo ci. dëgg la euh, fi mu toll nii euh, problème boobu yow lan nga ci wax muy kaawu Ndeye Ndiaye Banaya ak ak copain bi ma gëy waaw lan nga ci wax problème boobu laa bëgg ñu waxtaanale si tamit aussi looy ci looy conseiller sa sœur Ndeye Ndiaye Banaya sa xarit. ndége ndeysaan loolu bëgguma ci woon sax wax. Mhm. ndax bi ma gisee loolu. Mhm. man daf ma métti dafa mel ne man la mhm. bi la ma fekk mais dama jooy ba sonn. Mhm. dafa mel ne man la. ndax ku nekk rek da nga a jooy waaw ku nekk da nga koy natt si su nekkoon yow. parce que tamit nday njaay lii ki ko def ku ma yàqkat la rek. man mii mun nañ ma ko def suba. man mun nañ ma ko def suba. on sait kenn xamul ndax ku la yéene pour yàq la moom. bunt bu mu aw pour yàq la dina fa jéem a jaar. te nday njaay instant bi mi ngi nekk ci yoonam. ñu bëgg koo fakasal mais yàlla rek moo man mhm. na muñ te xam ne lii des na yoom la moo gën dee tey bu dee woon dañ koy jooy mu jeex mu noppi lii moo gën dee na ko sante yàlla bu baax a baax mhm. Maguette faal tamit ñun ñoo nekkandoo woon sa kër mu nekk élément Cheikh Gueye nekk ku mhm. baax Maguette Fall du xool nit ba sànq ci suba bi ma ko woowee téléphone rus na sax wax ak man dani ma dama jàpp après dinañ déggante waat daf ma nuyu ma commencé di wax ak moom ci loolu rek mu ne ma si dinaa la woowaat ma xam ne kii nitu kese la sama kër Maguette day ñëw toog ba ñibbi du ma xool mais Ndeye Ndiaye tamit mu defaraat toogaayam bu baax parce que tamit juum na nit am na loo xamante ne. mais su fekkee euh, Kaja baal ma. su mhm. fekkee tey comme maanaam tey ni ngay jëlee sa téléphone. Mhm. jox ko nit ni ko ma dem ma dem fenn quoi. Mhm. jël sama téléphone jox ko ni la kajaa am snap ma. wala kajaa bu ma duggee ci programme filmer ma. tey wala man bokk nga ne a déggee filmer ma su ma duggee ci programme filme ma. defal ma lii defal ma laa. tey boo duggee ci programme bi ma lay filme fexe naa ba dugg sa répertoire jël naa vidéo boobu envoyé naa ko sama bopp ba pare supprimer ko. Mhm. est-ce que demeewul noonu tamit parce que tamit ñun artistes yi dañuy joxe suñ suñ téléphone yi ah, am filmer ma est-ce que tamit demeewul deme demeewul noonu est-ce que joxul nit téléphone am sama idée rek laay joxe quoi sama xalaat. est-ce que tamit demeewul demeewul noonu wala. dëgg la loolu yëpp mën na nekk mais dégg Nday Ndiaye moom rek moo xam bu nekkee mhm. envoyé woon na vidéo bi nit mhm. moom war na xam ne am na ku ko envoyé woon mun na jóge ci kook mhm. yaa ngi dégg version bu nekk mais li rafetul ba rafetul mooy Ndeye Ndiaye na loolu c'est normal ndax nit mi ngi fiy def lu ko gën a pire na moom te ma sàmba xamu ko ma demba xamu ko mais li li njëkk a ñàkkar bañ a rafet rek mooy ngay nekk ak nit parce que fii ku nekk yaa ngi vie sa vie nga nekk ak nit di ko filmer ñu ne déetawaay nga bàyyi ko sa portable moo ko yóbbee lii lépp juum moom bu ñu bëggee dégg rek dëgg man moom daf ma métti trop parce que dama jël kaam taf ko ci sama bopp man mii mën na dal ñëpp ah waaw man mii mën na ma dal mën na dal sama rak mën na dal sama doom te kon dina ma bi ma ko damaa jooy ba ñu may téye aadama kambaay bi ma wooye dana ma soo noppul ma damay xaru magam tantaam ma ne ko Adama jooy ma pour Ndeye Ndiaye de. Mhm. parce que benn moom moo juum moo filmé boppam te lii dafa rafetul. Mhm. mais dama jooy tey su nekkoon man nan laa war a réagir ak sama mhm. yaay lu cause bi muy dund. mu métti ma trop trop trop ba jour boobu bu ñu demee ci seen waale bi toog xale yu góor yi ku ñëw artistes yi ku ñëw soxlawoo kenn ci ñun ngay ñëw feccikat yi. kuñ ñëw ci ñun ngay ñëw defar leen seen toogaay. gis ngeen li fi am. feccikat li te feccikat ndéegee ba jamono sosoo ba tey jii xanaa maire yi nga xam ne ñoom am nañu mille sens nekk Sorano. ay spectacle comme ni dëkk bi tajul woon internet bëliwul woon téléphone yi ay whatsapp yi mhm. amul woon mhm. ñoo ñoo ci am mille sens mhm. mais ñun ñi ak dernière génération bi ñëwaat dañuy am problème parce que léegi dëkk bi téléphone yi bëri na chaîne yi bëri na youtube yi bëri na looy wax ak looy def na ko xam pour nga defar sa toogaay nul n'est parfait mais yàlla na yàlla dooli sutura suturaal mboolem mi jullit parce que destin ku nekk lay dal léegi yow euh, Kadia en tant que sœur tey boo doon conseiller Ndeye Ndiaye tey loo koy Ndeye Ndiaye daal li ma koy conseillé mooy ndégee lu métti yàgg naa dal nit te lu métti moo ko àdduna ñoo ànd moom ñi ko bëgg bëgg nañ ko ba pare te mënatuñ ko bañ na defar toogaayam mu xam ne artiste la loolu marqué na ci empreinte am ba pare su jógee ci lii mu suivre liggéeyam gëm boppam xam mooy kan bu mu découragé parce que lu guddi yu gën a métti yi amoon na fi man de euh, man de idée bi ma amoon ma koy conseillé en tant que sœur su ma sañoon day génn balu Sénégal yëpp ak man bok idée bobu la amone wa loolu rafet na tamit pour mu def ko. mais instant bi ni ñu tollu ni nday nday gëw ma ne. gëw ma ne am confort bu mën tok pour jakarlo ak sénégalais pour wax ak ñom parce que man ndaysan demb rek bima ko joté demb rek ndaysan mu ngi ne ma man sama carrière lañ bëggoon yàq yàq nañ ko man ko dédé sa carrière yàquwul. yalla rek mo ñëw ak ndogalam. non non ñom yalla bu ñëw ak ndogalam nu nekk lañ ñëwé ñoñu mu ma génn baalu sénégalais ak pour man wax ji close mu jeex. ñooñu mënuñoo yàq carrière sax parce que Ndeye ñu koy bëgg dañ ko bëgg seen bopp te yàlla tax te affaire am bi tam bi mu amee Sénégal gépp ko sopp waaw Sénégal affaire am bi bi mu amee tamit nit ñi wuñ ko en tant que jigéen parce que dafa rafetul mais ñëpp taxaw nañu vraiment pour dooleel ko métit lu ko tamit parce que xam nañ ne bu nekkoon Ndeye Ndiaye ak Ndeye Ndiaye su nekkoon moo am amour bi di def loolu ci téléphone am tamit nekkul lu muy jël di ko partagé wala muy jël di ko wane vie privée am la woon mais ki ko jël tas ko kooku mooy ki bon te ki la def loolu bu gisee tey lu la ray da lay mhm. ndax lii mook mhm. bu bu defee lii Ndeye Ndiaye def ko Ndeye la ko def na ne moo jël téléphone moo jël téléphone Ndeye Ndiaye jël vidéo bi mhm. est-ce que xam ko kooku tey ñaanuma ko yàlla tey bu Ndeye Ndiaye xaru woon moo ko rey mais ko lii kii dafa nit lañ ko war a ray te su ma nekkoon Ndeye tamit du ñu bàyyi noonu dinañ ko topp ba xam kan la fii léegi dëkk bi lépp dañ koy lijjanti téléphone boo fi def loo fi war a def bu dugg cyber criminal ñuy génnee ki def lépp bien sûr loolu su ma nekkoon moom du ko bàyyi nii même comme que moom teg nañ ko gàcce ba Sénégal yëpp xam ko dina xam kan moo ko jugoon pour toroxal ko da koy topp su ma nekkoon moom dama koy topp parce que lii tamit du lu ndaw tey nga war a fonder famille yor say doom suba nga am ay sët ñu màgg ñu lay bindal ay Ndeye di gis say œuvre yoo xamante ne nekkul rafet ñu naan kii lii la defoon ci temps ak jamonoom sa yaay sëy ba dee te nday njaay yaayam dafa sonn ci kër googu muñ fa lu nekk muñ fa lu nekk daj fa lu nekk sëykat la moom yaayam bi ma demee seen kër ñu toog man ak moom mu may présenté yaayam di ma wax ñu dugg oto di dem HLM nday njaay dafa ma wax ci yaayam loo xam ne dafa ma marqué ma jooy ma ne ko nday njaay góor góor yow kenn yomb na la de billaay xam nga jigéen bu nekk jigéen nga te sëy dafa metti comme que xale mooy nekk jëkkëram ngeen bëggante yéen ñaan ngeen di sëy ay góor di la sonal ay goro di la sonal ku weddi na la laaj non man moom man moom man moom man moom tubaar tubaarkàlla macha allah man samay góor ak samay njëkke mention waaw moom dañ laa bëggoon man moom mention spéciale dañ maa bëgg ba tey jii may wax ak yow dañ maa bëgg mais su ma la doon delluwaatal lu tax doo bëgg nga dellu ci sëy bi léegi damay liggéey mais mën nga li man maa ngi nii di sëy di liggéey bokkul de man dañ maa ne woon seetu seet yóbbu ma ba xombal ma wàcc jël saret dugg ci ah man man néew ma seetu seet ma ñëw ba gunaas toog fi ndégee gunaas tey bu la woowoon léegi émission 2STV da ngay taal sa oto dem waaw mais sa jëkkër mën na la mën nga ñëw dëkk ak sa jëkkër fi man maa ngoone lat kere Fatim ngay ñëwee mi saan njóogu mi si jaayaan biram siga mi si jol kooku du sëy kese moo ñu boole man ak moom sama xarit la même bu ñu sëyeetu man ba léegi li may wax waxoo ko de pourquoi delluwaatoo ci sëy ba ba tey dégg nga instant bi damaa yor ay doom. waa waaw sa yow dafa ndànk sa doom yooyu sa jëkkër ji nga tàggool moo leen moo leen jur. loolu kenn dorante wu waaw dafa keneen juru leen. waaw ku dul sa jëkkër ji nga tàggool. kon war ngaa mën dellu foofu ndax sa ndax sa njaboot. nga naan damay liggéey liggéey lu mu jotee ak ak sëy tey ku nekk boo sañoon. foo sëyi ba tuur fa sa biir fa ngay toog mais ni sëy dagane noonu la tas dagane te ki ma noon sëyal ku baax la wax dëgg fa neex yàlla sëy nañ tàggoo nañ mais amuñu benn problème man ak moom mi ngi mhm. toppatoo ay doomam mhm. mu ngi xool leen neex chaque jour di leen ko defal ma koy ñaanal tamit gudd fan ak wéer kenn xamul te du ma ne du ma àndati ak moom ndax àdduna dafa gudd tànk mhm. ndax sëy nañu ma tuur fa léegi yéen bokk internet yi ñaan naa leen ngir yàlla gémmi Seydina Mouhamed ngeen delloo waatal ma ko jëkkëram jooju mu Moussa Sène borom Suisse ah borom xombal jàpp leen ci commentaire yi dama bëgg yéen ñëpp ngeen commentaire mu dellu ci sëy bi te yàlla rek tax mu dem sëyi te yàlla rek tax ndax am na fa ay bant am na fa njaboot jëkkër ji buggoon na ko fonk na ko Kaja looy tàggoo waa Sene lëmbal looy tàggoo waa maa ngi nuyu senegal di nuyu sama yaay di nuyu sama papa di nuyu sama famille di nuyu sama xarit di nuyu ñi ma dooleel ci Sene lëmbal nag ndax damaa am ñoo xam ne dañ maa taxaw guy gi nee na nga lëmbal guy gi guy gi waa senegal guy gi moo ni na kii lëmbal waa guy gi may ma ñëw ba pare <laughs> ndax fii nii nag fii nii nag ku amul wéeruwaay da ngay neex ba ma son boobu laa bëgg ceng ceng ceng ceng ceng waa rita mbala bi day ñëw mën na nekk comme damay tàggatoo ndégee waaw ku amul wéeruwaay da neex bu ma waaw damaa am ñoo xam ne ñoo nekk sama ginnaaw dooleel ma ne ma kajaa sa sene lëmbal bii nii bu ci am lenn looy soxla di tiit wala ngay ragal ku ci mel ni ajaaloo laa reine des cheveux séeri daal borom Pikine mhm. ku ci mel ni kumba ñi taalibe sëñ Fàllu bi ajaaloo mhm. séeri ab kumba euh, ab mati sama yaay jooju doomu yaay Amina Poté ku ci mel ni Coro xel comme prise borom Sandaga ak mhm. Bamba IBC borom feri ci ñun feri waaw bul tudd loolu bul tudd tur boobu ah fer ku ne lëmbal wax fer waaw non nga njëkk wax kooku laay wax kay moo tax ba mu nee Bamba cee teg IBC ah IBC la ci teg waaw waaw d' accord moom nga xam ne moo ñu sponsorisé ay fer ñun heure bu ñuy géej fer yu bees tàq la ñuy jox wax amul ak waxaab faal sunu papa nga xam ne moom tamit daf ñoo dooleel. tubaarkaala waxaab men waaw. barki démb bi ñu fi patron Khalifa Mbaye ah, patron waaw kooku mooy patron ñëpp mooy sunu papa de ñun keroog dañoo ngemb ba ñuy dem. gan mbay ca kaw ni mu lay xoole jil dina ma xool ndax li may wax nii tamit da koo yéem. jili mbay waaw ca kaw taas mbaq re kaw. léegi <laughs> ba ñu waree dem. Gambie gaawal gaaw ka jaar ba ñu waree dem waxaab daf ñoo woo ba ñu ñëw biroom Mhm. ñu fekkante fa ak ay artistes yu bëri mu ne ñu may leen ma damay recevoir ñii samay doom lañ loolu dafa rëy ci ñun mhm. te ñooñu ñooñ jiitu ci aar di suñuy papa di suñuy mag mu ne ñooñ nañ leen may ñun ñu ñëw mhm. mu ñëw mu conseillé ñu yedd ñu teg ñu ci yoon ñaanal ñu ba pare jël xaas bari jox ñu ne ñu nag maa ngi seen ginnaaw ak suñu wen manager boss bu 2STV ñu ngi koy sant tamit di ko gërëm di ko ñaanal ndax bu ko neexoon dégg dara liggéey ak ñun ba pare nañu sama pourcentage lii la wala léeg te boobu ba tey nag toogul ñun gis nga ñu bi ñu jógee fee ba tey dañoo xew site bu nekk bëgg a def ak ñun interview ñu bañ waaye yow comme yaay patron soo wootee ku bëgg ñàkk ku soxla ñàkk soo bëggee ku soxla ñàkk may sant sama yaay bu baax di ko gërëm di ko ñaanal gudd fan ak wér eh, Rita Mbalefane mais guy gi 95 yow daal guy gi 95 la guy gi 95 man boo may woo ci lëmbal danga may woo ne ma dangaa war a ñëw pour lëmbal xam nga ne sama. waaw mais cuissard nga sol de kajaar waaw. yow seen lëmbal. cang yow kii waral ma son bi. cang cang cang cang cang cang cang cang gi gi jër. mooy wax non non yow bàyyi ma kii li mu bëgg lépp.